di euh, yëkkatee suñuy euh, kàddu ci actu commenté bi di ponk bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a mm-hmm. di euh, installation pole judiciaire et financier bi nga xam ni installé lañ leen nit ki démb mm-hmm. ngoone indi na ci ay leeral ñu bàyyi Pa Moussa maam yi ñoom ñu daal di ci indi seen i xalaat. déjà ci composition bi ah profil yi nga xamante ne ñooy 27 yi magistrats yi war a ci liggéey bi ñoo xam la. je non je les connais pas euh, mais am na ci effectivement ñoo xamante ne xam nañ leen ci euh, espace bi mais euh, xam nga xam nga pôle bi jàpp naa ne profilage yi non seulement dafay dafay dafay suivre li nga xamante ne moom mooy seen carrière ci liñ ci def ci ay dossiers yu ñu yor ci ay procédures jàpp naa aussi que ni kuy kuy kuy kuy kuy wuti. traqué pour prendre reprendre benn langage commun li nga xamante ne moom mooy infraction financière wala économique yow li njëkk ci critère bi hmm. mooy lépp lu ñu mel loolu moom wax dëgg yàlla kenn warul la ciy mën a dégg ah ah impérativement c'est c'est c'est c'est loolu c'est une condition sine waa non ba pare nag maintenant courage courage oui parce que jàpp naa ne juridiction les deux ou trois prochaines années ñooy nar gën a bëri coow. pool bi oui seeni tour voilà comme na fi conseil constitutionnel meloon et cetera parce que ñooñu ñoo ñooñu ñuy topp ñoom ils ne vont pas se faire et ils vont politiser des les choses donc euh, profil la euh, yoo xamante ne en tout cas man moom ñi ma ci xam da ngay am carrément yaakaar ne euh, dina dina dina dem fi mu war a dem dina dox ni mu war a doxee. Euh, ñan nga ci xam. non am na ñu ma ci xam euh, bon je peux ne pas citer de nom. Hmm. mais quand même xam naa ne ah présomption euh, de de de qualité dans aussi bien euh, l'instruction aussi bien que le jugement jàpp naa ne dinañ mën a dinañ mën a def li nga xamante ne moom la sénégalais yi di xaar ci ñoom parce que cette justice là aussi est rendue au nom du peuple. oui mooy résultat bi nga xamante ne moom la la. ministre de la justice wax ne dina ci am. moom moo ci am solo. oui en résultat bi. du tëj rek. justement lan la. bu dee nañu résultat bi lan la. bon delloo alalu askan wi te loolu jàpp naa ne bu ko pôle financier bi réussir le duo Diomaye ak Sonko réussir nañ seen mandat. Hmm. impérativement. maanaam delloo Sénégalais yi di ñu moom te ñu luubal ko loolu kese kese kese moom doy na liggéey doy na mandat bu positif largement donc. pour pour pour comprendre aussi euh, l'étendue de la responsabilité bi nga xamante ne nekk na ci ñoom. oui bu ñu waxee dañ naan dundoon nañ ko ak CREI commission rogatoire yi dem nañ fu ne ci àddina te pourtant ay boroom xam-xam ñoo ci newoon mais lii jafewoon na pour ñu génnee ne nangam la ñu jëlee daf may daf may jaaxal sax parfois bu ñuy def le corollaire avec euh, la CREI pourquoi ce n'est la même chose du tout bokkul CREI benn infraction la mu doon topp de bu leen fàtte loolu muy ah, enrichissement illicite toppee ko ci anam boo xamante ne aussi képp ku sérieux war na xam ne lii vraiment mooy loolu Pa sa kër ba ca Mboro mi ngi jar cent millions bi ci Dakar mu ngi jar trois cent millions wax ñu l'origine licite donc dama la tuumaal ba pare partie du présomption que nii yow yaa def léegi wan ma lay defoo créé yi loolu la l'absence du double degré de juridiction mënoo def appel foofu alors lii bokkul ak loolu kii li mu li mu mën a poursuivre du benn infraction rek tout ce qui est euh, ce qui est ak euh, ay infraction économique financière yëpp. oui waxuma poursuivre mais résultat bi. laay wax final dama la bëgg a wax ne la final. dama la parce na fu demoon na Monaco demoon na Traqué mais jamono jooju ñu wax ay deux cent cinquante milliards ñu naan cinquante milliards voilà. li ma la wax nii ci CREI. moom tax na boobu recouvrir dara. ah parce que boo bay décision bi. France Monaco Singapour États-Unis hmm. dañu daal mais cette juridiction bi ñun xamuñu lii lii daal respecté wul dara ci droit de la dafa mel ne da nga tuumaal kenn mayoo ko mu def appel jox ko ko présomption d'innocence après ñëw ne naa ko appliqué c'est-à-dire CREI yi moom moo nekkul ci normes standards internationaux yi nga xamante ne moom la ñuy reconnaître une justice équitable mm-hmm. CREI yi nekkul ci loolu donc décision CREI yi boo xoolee même même même waxuma ay dem leen toog or man gëm naa ni on a on a on a on a lapidé l'argent public ici au Sénégal sous le régime Wade. Mm. oui dama ko cest dire dama gëm ne la culpabilité de ñu doon topp elle était mais malheureusement Macky Sall a utilisé un très mauvais instrument juridique pour le caractériser alors léegi boo ko defee ba pare mais tu auras du mal à ce que nga dem euh, beneen dëkk ne leen décision de justice bii nii maanaam euh, compte euh, ki ñu daan. mi ngi Monaco léegi yow nga war a dem Monaco pour saisir loolu noonu Monaco day xool décision bi xool juridiction bi dana demal sa yoon yow da ngaa tuumaal nit ku deful dara parce que mayee ko présomption d'innocence il y a pas double degré de juridiction et cetera donc CREI ak lii bokkul lii amul benn gis nga ngoone lim la li euh, cité ci ay chambre yi nga xamante ne ñoo mais yooyu amul woon ci CREI ça n'existait pas mm-hmm. alors donc fii am na benn collège de juge d'instruction mais même yooyu noonu boo d'accordul seen instruction mën nga attaquer l'ordonnance de renvoi devant la chambre euh, d'accusation mënuloo nekk ci CREI alors euh, elle a parlé de la chambre d'appel de chambre d'appel financier amul ci CREI amul kenn ku naan ku mu naan la yow euh, monsieur farbongom Ngom yaa moom terrain ba le war ñu këne euh, law na mhm. dañ naan la lii lii lii lii après apporter la preuve c'est-à-dire c'est le parquet financier qui apporte la preuve Euh, d'une culpabilité X ou Y après euh, ñu def seen enquête mais loolu fan nga koy yóbbu ci àdduna duñ la jox gain de cause loolu exemple la rek. parce que li wë li ëpp lépp kii ci coow li du sax dem ay extérieur pour. Euh, pour dem jël non xool ji fu koppar yi ne. non yu bë bëri ñu ngi fi. ñu ngi fi ci réew. oui mais par exemple euh, nga gagné marché. exécuté wu marché bi ñu jox la xaalis bi par exemple six cent millions ñu doon wax ci euh, pôle. Euh, emploi de emploi. non c'est-à-dire. bu ministre bi doon wax barki Demba Ndiaye ci assemblée. waaw waaw exactement parce que euh, dafa yor dix milliards pour kii bi. sende ko en quatre deux milliards cinq. exécuté benn bi beneen bi way six cent un million boo xamante ne xamul fu mu jugee mais nee naa la am na ci ñoo xam xam nga xam nga ñi mami doon cité léegi. ñëpp géré wuñ l'argent du contribuable ah. voilà euh, léegi man mooy li ma la wax léegi ay marché fictif ñu jox la ko du marché mais xaalis moom jox nañ la ko alors que exécuté benn marché aw dafa exister hmm. or xam nga ki caractériser euh, ki jéem a prouver la culpabilité c'est le procureur juge d'instruction day enquêter à charge et de décharge juridiction de jugement bi ñoom ñoom seen yoon newu ci yëpp dañuy bàyyi ba li nga xamante ne c'est débattu devant eux mais loolu fu xaalisu Sénégal mën a nekk décision de justice boobu noonu day day day am day am crédibilité par rapport ak euh, comparé ak li fa nekkoon moo tax ma ne la police judiciaire bi du CREI remplacé wul CREI c'est-à-dire dañ mel ni ñun bëri danoo foog ne CREI lañ perfectionné. Hmm. en fait ça bon déjà euh, cour ak pool bokkuñ c'est-à-dire signification juridique bi. Hmm. sax bokkul bul foog ne ëttu avocat yëpp bu ñu nee tribunal am na lu tax ñu wax ko cour am na lu tax mu tudd loolu. këy cours la woon moo tax cours moom ak luñ ko mënti perfectionné cours mënul am appel boo ko mënti perfectionné cours d'assises daanul am appel haute cour de justice du am appel or ministre yi foofu lañ jëm dans l'exercice de leur fonction je précise bien dans l'exercice de leur fonction mais ministre ministre peut dépasser l'exercice de ses fonctions boobaa pôle judiciaire bi la ah oui ah. Euh, ministre bu fekk teerew état mu hypothéqué ko ce n'est pas dans l'exercice ça de wuji ah il est bon de préciser de préciser ouais. ça. waaw ouais, euh, parce que préciser. a y a d'autres institutions euh, yu doon exercer des fonctions voisines. ñu xaw a la Cour des comptes ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne. mais mais lan mooy différence bi. parce qu'on a vraiment envie de comprendre. oui xam nga ñooñu par exemple am na euh, autorité yoo xam ne c'est administratif autorité administrative yoo xamante ne dañu ko comme OFNAC par exemple. CENTIF. cellule national de traitement des informations financières ñoom dañuy def li mais empiété wuñ ci travaayu pôle bi. Mhm. mais par contre mën na jël seeni rapport ce ne sont pas des autorités judiciaires euh, CENTIF Cour des comptes loolu du du du ça ne fait pas partie de l'organisation judiciaire par contre Cour des comptes effectivement wii ci juridiction yi la bokk. Hmm. oui ci autorité judiciaire la bokk mais amul aspect pénal. dafa composé wu par des. amul aspect pénal c'est-à-dire moom alors li nga xamante ne moom boo xoolee rapport am yi recommandation bu si amee loo xamante ne infraction la économique ou financier moom daf koy jébbal procureur maintenant léegi daf koy jébbal euh, pôle financier. ok donc ñoo ñoo ñooñu mën nañ mën nañ koy saisir de le rapport parce que seen domaine moom moo nekkul lu pénal ñeneen ñi nga xamante ne nag ay OFNAC IGE euh, et cetera yooyu ñoom mën nañu sukkandiku ci seen i rapport mais kii bi euh, pôle financier bi ni mu ni mu ni mu ni mu organiser woo di nga mën a comprendre que dossier bu établir culpabilité. Hmm. non dëgg dëgg dëgg dëgg boo boo boo mandoo ku mu daan dina xam na lii ñu ma daan di dëgg la. maanaam liggéey la boo xamante ne da lay. du pour ni pourcentage d'erreur bi lu minim la. parce que xam nga soit transmis am na. waaye donc dig ak section de recherche ñu ngi ci ñooñu bu ñu liggéey ba pare déclenché wuñ euh, l' opportunité des poursuites pour kenn bu ñu ko kiiyee procureur day jël temps mm-hmm. bu procureur pare jox ko collège de juge d' instruction collège de juge d' instruction boo d' ci ordonnance de renvoi bi mën nga dem chambre d' accusation léegi bu ñu yegsee ci juridiction de jugement bi gis nga process boobu noonu yëpp le pôle judiciaire ce n'est pas créé du tout te te te te ça ne parle pas d'enrichissement mu ngi lay wax léegi waxu blanchiment fraude euh, corruption yeneen ak yeneen lépp loo xamante ne infraction la bu am caractère financière wala économique moom euh, euh, am na compétence compétence am aussi ce n'est pas territorialement établi c'est-à-dire fépp fu mu mënti doon ci Sénégal sur l'étendue du territoire. du la déggee mooy ne mën naa bañ a yegg ci am résultat. lu pourquoi pourquoi nga wax loolu. parce que process bi nga expliquer sànq ni bu ñu càmbaree li nga wax naan bu ñu demee ba euh, ñu. Euh, euh, téye téye dara condamné xamal ne moom wér na moom. mais seulement léegi process ba yegg ci loolu laa wax. waaw xam nga déjà rek déjà rek ko collège bi ñu xool ko loolu. yegg commencé wul sax sénégalais yi nee dafa yéex. <laughs> donc comme qui dirait le temps de la justice. Euh, le des hommes. Voilà, exactement. Donc ça va prendre le temps que ça doit prendre. Parce que sur multitude de dossiers, benn erreur ngay def décrédibiliser pratiquement ce lépp. Donc loolu daf loolu dafa ànd ak dal man je pense que ni Macky Sall euh, lu yàq euh, tragam bi loolu la. Et finalement euh, le petit piroguier de de Rosso interdit de sortie du territoire s'est retrouvé en conseil des ministres ak ki ko doon poursuivre substitut du procureur ba ñoom ñëpp table conseil des ministres ka nga doon topp ak ña la doon topp yaa ne woon interdiction de sortie du territoire après yaa àndal donc y avait pas une volonté politique de delloo si li nga xamante ne moom mooy euh, li nu moom c'était une question de volonté je pense que Macky Sall ne l'a jamais eu mm-hmm. et finalement euh, après que ni mu sacrifié euh, Wade fils mais il ne s'est contenté que d'utiliser l'appareil judiciaire pour ses règlements de compte politique or fii bi nekkul ci loolu du parce que bëri na bëri goo xamante ne càcc gi bëri na bëri goo xamante ne. Hmm. li tax ma ne la bu ko réussir réussir na bilan wu. positivement. parce que euh, alal boobu fi mën a dem dafa bëri li mën a lijjanti dafa bëri. te alal yi lekk nu ko muy. non loolu yëpp xajul ci biir bu ñëwee di nga xam non. effectivement li nga ne léegi xam nga nag léegi après am na yuy dem. yooyu nag mooy waral les condamnations c'est pourquoi je suis tre contre une médiation pénale dans cette affaire la hmm. médiation pénale oui mais euh, sàng sutura bi ñuy wax it. Mm, non euh, Ousmane gars yi rëbës fii ci benn ginaar ñu tëj leen fa yow nga def ay milliards ñu naan la ay médiation pénale hmm. boo joxee dem sa yoon déedéet donc je pense que ça doit allier. efficacité efficacité mooy xaalis bi na dellu mais ak sanction répression à des faits pour mu dissuasif quoi sinon bu ëllëgee lan moo tax euh, waa nguur gi sañoon a def lu leen neex parce que ñeneen ci wàdd dañoo def lu leen neex te dara xew alors parfois euh, la pédagogie par exemple il faut sanctionner les détournements de deniers publics très très très sévèrement man moom bu ma sañoon crime lay doon dañ koy criminaliser loolu rek a jar a moo gën a jar a Euh, vol de bétail te vol de bétail crime la bii man dama jàpp ne day rey nit dëkk bu amul hôpital saa yi nga détourné lu tabax hôpital yow dafa mel ni nga yenn hôpital du dugal sa poste di daw. dëkk bu ñoo xamante ne ndox bu ñu naan problème la. Mm. nga mën a jël autant de milliards noonu pour yow ak say njaboot rek après ñu bàyyee la ko pour la alors donc je euh, bon loolu moom j'en suis sûr à cent pour cent kër yi Euh, ñi ma xam ci pôle judiciaire. Hmm. non ils sont insensibles à ça certaines choses ils sont pas émotionnels en tout cas. Hmm. nekkuñ ci émotion xam nga Sénégal dafa bëri émotion. après bon voilà nañu seeti sëriñ bi nañu déedéet yooyu yëpp du am waaw parce que ñoom it ba ñuy lekk kenn yëgut jël li ñëpp bokk akimoo ko dem ak sa njaboot tey bu sanction jotee demal wuy ji rek ba mu jeex tàkk ay ñaan intervention nañu kii nañu baale ah euh, loolu dafa yomb. est-ce que amuñu ko bokkal sax ñenn ci ñoom ci koppar yooyu ñu jël. amuñu reste savoir hmm. ndax am ñu ko hmm. ñu ñu ko bokkal. ah waaw bien euh, sûr bien sûr. Ah. ni muy amee ay ay ay auteur principal noonu lay amee ay complicité am na ñoo xam ne loolu nag lañ leen nar a toppee. am na loo ci xam. am na euh, <laughs> waaye <laughs> waaye Ngoné Saliou ñëw nga Saliou ci profilage am na lu mu ci xam ci ah, ñi ci xam yëpp maa ngi ñoo xam waxtaan nañ wax ko fii am na loo ci xam Pape Pape Sow boo waxee bu ba ñuy def appel vidéo da nga ko fàtte <laughs> ah, ñu waxoon la Frédéric Diab ma ne ko noonu du ko kenk la ñu wax ko dégg naa dañuy nan nga yaakaare ni non am na ku ma ci déggal démb dégganteel démb ah. wala grave bàyyi yow yow yow. ah déedéet non non méttiwul méttiwul yaa mën a tax yaakaar non non non non yow waxal li. <laughs> non dafa am da dafa am comme comme comme l'histoire du double meurtre de Pikine wax yi dafa bëri ba bëri ba compromettre enquête bi te xamuñu ko ndeysaan. Hmm. mais lu bëri lu mu yàq ci wax ji. day dox bon voilà quoi. Hmm. avec l'aide des réseaux sociaux ku nekk di kii. day day day day day gêner enquête carrément. oui. sànq yaa ngi koy wax yu bëri euh, bon du sànq sax am na benn jour na ko